sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahaabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil xamli al matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ginnaaw bu nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuba Cheikh Mahamadunil Muntaqa sun borom yokk ko fan te dolli ko wér mu àggale mboolem ay naalam ak yéeneem ci lislaam ak ci yoon wi ak ci dëkk bi ak ci jullit ñi di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal suñ bopp it nun taalibey sëriñ Tuubaa yépp desuwaat seen télévision Lamp Fall ci seen émission bi ngeen miin muy am ci koor gi bis bu ne ci waxtu wi di émission Fardul Hayni tey jii di talaata di ñaar fukki fan ak juróom ci chahru ramadan al mubarak 1441 hijriya ñu gën a fonk bis yi ni ma ko waxee woon ci émission weesu ndax mooy bis yi gën ci koor gi mooy bis yu mujj yi Sénégal na dafa baaxoo lu bees ci moom fonk su demee ba yàgg ca daal koy tàmbale woyofal day gis ne koor gi bi doo tàmbale jàkk yi day fees dell waaye fees dell waaye bu koor gi xaajee wees xaaj nga ta gis mu tàmbalee ruus jàkk yi tàmbalee yaraax jumaa yi tàmbalee yaraax waaw nañ xam ne lu ñu doon def rek fii la gën ci waxtu fukki fan ci la gëne ay xadis yu bari roon na ci yu leer yu bàyyi ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom nu mu ko daa fonkee nu mu ko daa taxawee ak nu mu ci daa soññee ak njabootam ak ñam yi soñ ak ak jullit tey ñu tàmbalee ci xamle ne jigéen am na sañ-sañu jëfandikoo lu koy tey gis baax ci misaal dafa xarmal xaj bañ nag baax di ko gàcc xaj gi ba du mën a tawaaf mu jëfandikoo luy tax du gis baax walla koor day teru su señoon woor weer yëpp du ci teg benn bis ba fay di ko war mu jëfandikoo luy tax du gis baax ci weer wi lool dagan na waaye ci ñaari charte ba njëkk mooy ñu bañ a ragal lor ci jëfandikoo su fekkee lor dana ci juddoo jëfandikoo lor ju koy lor suba dootu dagan ndax li suñ borom wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen tàbbal seen bopp ca alkande lu leen di lor bañ ci tabba seen bopp su fekkee lor da cay juddoon nga def ko nag kon yaa tabba sa bopp ci alkande ak li wax ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima wala taqtulu anfusakum bu dee ci rawat washi anfusakumu inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp ndax yàlla kat ku leen yërëm la kon ñaari aay yooyu muy mooy tegtal ne kon nit ki du tàbbal ci moom kon sart bu njëkk mooy mu bañ a doon loo xam ne lu koy jural lor la ba ko ñaareel mooy mu defee ko ci ndigalal boroom këram day fekk mu déggoo ci ak këram ndax su fekkente ne aada wala boog idda da ca aju ci anam goo xam ne xam ne nit su fekkee borom kër saa bu fasee soxnaam muy jàpp idda li fee idda yi jeex moo war di dundal soxna sax saa boo fasee sa soxna fii nag jëfandikoo ñu ko dama lu ñu ko dund waaye saa boo ko fasee li fekk xiddaam jeexu yaa koy dundal mu xiddaam jeexam su doon doo la wàcc kon su fekkee sa borom ko dalaa fase ngay jàpp idda xam nga idda booy booy jàpp bu fekkee doo gis baax idda yi day day yàgg fekkee laa fas na ngay ngay ngay jëfandikoo lu tey gis baax te te déggoo ca ak moom loolu day xaram kon su fekkee da ngay jàpp kon faaw nga déggoo ca ak moom ba noppi même bu fekkee yaa ngi ci biir buum gi di sëyit ba tey bëgg a def loolee tey gis baax ba tey day aji nga am ci ndigalam itam su fekkee ne du lu jure benn lor déggoo ci sa déggoo ci sa borom kër kon jëfandikoo loolee tey gis baax dagan na dara newutu ja su fekkee jëfandikoo luy tax a gis baax la gis jëfandikoo loo xam ne da ngaa bëgg a gis baax jëfandikoo ngi gis baax moom it dagan na ci ñaari charte charte bu njëkk bi mooy mu bañ a doon nga nga bañ caa jublu rotal waru gar maanaam koor day jege si nga jëfandikoo loo tax a gis baax ngir bañ a woor rek waa daal tayal nga ci julli ngay jëfandikoo loolu tax gis baax ngir ngir bëgg a bàyyi julli nga xam doo ci jub laal rotal lu la war daana dagg waaye day daal di moom ñaareel bi mooy mu doon ci ndigalal boroom këram ndax sa boroom kër dalay soxla te boo gisee baax dootu mën a jaxasoo yow kon faaw nag nga sàmmanteek xam kon faaw nga laaj ko ci ndigal su la joxee ndigal eh, eh, nga doo ko sañ sañ def su fekkee ku ñu fase la it nga xam ne da ci da da day mën a daal di jeexal xàq bon nga xam borom kër bi li fekk iddaa jeexul ma naa laa fay li nga bëgg a gaaw a jeexal iddaa je ngir bañ la ngir ngir ngir ngir doga dog gàttal xàqam ba tey doo ko sañ lu may ci lu may lu ci ndigalam su ca yooyu yëpp amul nag kon sañ ngaa jëfandikoo looy tax gis baax mooy dara néew ci ci ñaari sàtt yooyu su dee ne jëfandikoo lu koy tee ëmb eh, loolu nag am na ñaari xeet ba njëkk mooy tere manaat te ëmb goo xam ne dangay dangay ma xam ne dootoo am doom mukk faaw nga xam ne danga koy ëri ëri goo ne dootoo am doom mukk loolu moom du dagan daa xaram moom ërite am njur ci sa bopp ërite gu continuer dafa xaram ndax dafa dagg ab ëmbam néewal ngir néewal ngir tam maanaam néewal am am ak ak njabootam te loolu day wuuteeg la la la la la yoon saa sam jublu woon ci denc soxna ci baril xeet wi ndax dafa xam ne na ngeen denc soxna te ci ami soxna ami doom ndax ëllëg sama xeet bu bari dama koy damoo ci kaw yeneen xeet yi ca des muy xeetu lislaam tey su fekkee da nga am ñaar doom ni ah man ko ñaar doom yi doy na naa ci yam te sama njur est-ce que ñaar doom yi duñ la jiitu leeru la de mën nañ laa njëkk a faatu su ko defee yow doo fi bàyyi ndono te faatu bàyyi fi ndono dara jëru ko subaa saw askan day dagg moom foofu lay yem ku sañoon booy faatu bàyyi fi ndono saw askan continuer fekk da nga ne doom yi képp laay am yemale ko mën nañ laa njëkk a faatu kon nag bo bo moom jural rek na bari rek na bari loolu islam bëgg loolu mooy xeetu njëkk xeetu ñaar li mooy arité ko arité guñ guñ guñ guñ guñ guñ àppal nga xam ne maanaam da ngay arité njurum ba dat sàngam ci misaal jigéen jiikat dafa bari lu muy ëmb ma mi dafa tegaloo nuñ ko tuddee ti ci wolof ki ki ki am juróom jege fàttina tur wi waaye daal nga xam daal maa hmm? nef dafa nef nga xam ne saa bu amee doom balaa nàmpal ba feral rek ëmbaat kooku sañ na organise ko saa bu amee doom mu jëfandikoo luy tax nga xam dama nàmpal ñaari at yu ma sëkk balaa ëmbaat mu organiser ko ñaari at mbaa mbaa lu ko niru loolu moom dagan na ci sartu nag mu am ci ndigale borom këram jigéen ñi sañu te gannaaw rek dem dem def planning di soril am njuram te amu ci ndigale borom këram faaw da ci da ci am ndigalam ak it lor bañ caa juddoo def nga ko lor bañ caa juddoo su ci lor dee juddoo ba tey du ko sañ tegtalam mooy daa daañu def li ñu tuddee azl la te saxaabe doon nga naan nee na ñun dañ daa défense yéen saa di ko nekk fi xam ko te te tëriwunu ko. xaslu mooy booy jaxasoo sa soxna ba lii génn ci bëgg génn di bëgg génn nga génn ko tuur ko ci bitti loolu mooy aslu saxaaba neen daa nañ ko def yenn saa sam ne ci suñ biir te téeriwunu ko moo tax ñu xam ne kon daggan na te lan lañ jubloon mooy bañ bañ ma doom rek te saa sam daa wax ne xamoo kat doom fu muy juddoo saa boori juddoo day judd rek yenn saa loolu la la leen ca wax waaye téeriwu leen ko mooy wane ne kon dagan na waaye nag balay dagan day fekk yow itam nga nga déggoo ci sa soxna de ndax ak xam la mooy itam bànneex ba muy am ca loolu da ko koy xañ kon faaw bala ngaa sañ a aslu day da nga ciy déggoo sax mooy da koy laaj ba ba déggoo ci ak moom waaye soo soo ci amut soo ci amut ak d'accord am doo ko sañ loolu it bokk ci ma taxam kon loolu ñu xam ne dagan na su dee nag jëfandikoo luy dindi ëmb avortement médicalisé boobu ñu doon ñu doon soow soow coow lu bari ci gannaaw dagan na ci kaw yi charge ci ñaari anam mooy rotal ga muy rotal ëmb nam ca na na ca ba ñu jublu sànk ko mooy bu fekkee xas nañ ko ral wal ak ruuxu mooy lam ëmb xas na am wuruuxu moom sañitu ko dindi ci njalbeen ba nga xam ne ni melugut dara nga xam ne amagut melokaan doomu aadama amagut ruuxu lañ ko sañee dindee tànganta koy waral waaye suñ ca xasee wal ak ruuxu nag nga xam luy dund la day xaraam léegi ñu dindi ko ci lu benn sikk sàkk ndax bakkan la rey bakkan bu ñu xaraamal la ci ci ne tooñu kenn ci benn amul benn xàq Eh, suñu boon di wax ci suuf samsunaan bis ba ñuy laaj liir bi ban xàq ban ban maanaam ban xaq la la la ban gan tooñ la tooñ ba tey ba tax ñu rey ko ba ay bin xutilat ban bàkkaar la def ba tax ñu rey ko xam kooku tooñu kenn defut benn bàkkaar ital ma odatu su ilat bi ay danbin qutilat te rey bakkan bu ñu xaraamal nag lu xaraam la ci alxuraan ak sunna ak lu boroom xam-xami jullit yépp daje su fekkee day lu jiit nag ñu cee war ak ruux nga xam ne amagut melokaan doomu aadama amagut ruux melagut nenn boroom xam-xam yi dañ caa wute moom ci daggan ga ñii ne na dagan na ñii ne déedéet daganut am ñu ne na am ñu ne dana dagan li feeg amagul bindu doomu aadama li feeg euh, forme forme li aadama rek dagan waaye su xasee am forme doomu aadama nag dagana tut waaye la gën a lëng nag ci jooju wax mooy tere ga tere lu tal gi lu may aajo da ko waral nag aajo ju ko ma sëkk ci ne yaay ji dafa wéradi ba nga xam ne mën a tuta ànd ak ëmb bi su lor la moo tax dañu wax ne bakkan bi dund moo gën a yaay sàmm bakkan bi nu may may sàmm bakkan boo xam ne ñëwagut te ndaje ma ko fi nekkal ba noppi kee moom nekk ko fi ñëwagut kon sàmm bakkan bi moo gën a yaay sàmm bakkan bee kon dana dagan lu may mu àgg ci xaal boo xam ne nag bind ma mën na sëkk soobaa dootu dagan moom ñaareel bu may dindi ga muy dindi mu bañ caa mu bañ caa jublu eh, rotal ko ci mujj ci ci ci mujjug diru ëmb ba maanaam mu jege waxtu wi am doom eh, loolu moom dagan na man man a opéré ko mooy su fekkente ne yaay ja da caa loro nga xam ne maanaam bu juddoo rek yaay ja da da ci loru mbaa muy lor ju aju ci doom ji mu ëmb. te mbir ma bañ a aajowoo opération su fekkee aajowoon na opération nag ñeenti xaala moo ci daal di am bu njëkk mooy na fekk yaay ji di dund doom ja doom jëm ëmb di dund te opération ba bu ñu ko defee ñoom ñaar ñëpp danañ mucc ndey ji dana mucc doom ji mucc ko subaa sañes na ko opéré su fekkente ne nag mën naa am doom ci lu dul benn jafe-jafe nag boobaa boobaa duñ ko sañ a opéré waaye su fekkente ne nag am na jafe-jafe te docteur ñoo xam loolu xam na ne kii kat mënta am doom ci fi ko baaxoo amee su ko defee rek mën naa loolu mën naa faatu mbaa doom ja faatu ñoo xam ne seen doom day day day day day xaw am jëmm su amee jëmm nag su juddoo rek ndey mën naa loru su boobaa nag sañes na ko opéré ngir loola kon dañ ko aajowoo ndax yaram woowu amaana la ci jàmm bi dañ ko war a sàmm waree su caa dindi dara wala ñu ci dagg dara lu may dañ caa ragal benn benn maslaxa ma xam maslaxa kubra la eh, wala wala bu ndaw la ndax ba bañes naa mañes naa jortu ci opération yi ñàkk lor ba noppi defar lor am ca moo tax dañ ko def ci waxtu woo xam ne dañ na ba munta ñàkk rek ñaareelu xaala bi mooy ndey jëfaatu ëmb ba di dund te mën nañ ko sauvé kon nañ ko gaaw opéré sauvé doom ja bu du lool nag eh, boo sax day war su fekkente mën nañ ko sauvé maanaam mën nañ ko opéré doom ji dund ba opéré ko day war ñetteelu xaala bi mooy ndey ji mooy dund waaye ëmb ba dee na ci biiram su fekkente ne suñ ko opéré day loru ca des dafa doom ca des soo mooy dañ koy opéré génn doom su fekkee benn lor du ci nag te lor ma te lañ ci gën a séntu mooy lor kooku ba dañ ko war a opéré kon dindi doom jooju nga xam ne dee na ba noppi li fekk ragaluñ ci lor ci ndey ji nag ñeenteelu xaala bi mooy euh, ba ma njëkkoon a wax dama ci juman ndax ba ma njëkk a wax mooy damaa wax ne ndey nday ji dund maanaam mooy mooy ndey ji dund ji dund ma wax ji dee doom ji dee bu jërtu opéré ndax amul njariñ ndax ndey ji deen doom ji deen kon jërtu opéré kon kon foofu dañu teen opéré ko te eh, yaram bi xàq jim am ci bañ koo gaañ fenn bañ koo dagg fenn ba muy dund àq joo ba tey moom lay kon ne am ba mu faatoo bu mujj bi nag mooy ba ma njëkkoon a wax may ndey jaa ngi dund doom ji am mi ngi dund kon su fekkente ne eh, yaakaar nañ ne juddu doom ji ci opération képp lay mën kon su waa sañees na ko opéré génne doom ja su fekkee dafa tàmbali judd leen la judd la ca mënut a judd doom ji judd ba xaaj mënut a àgg ba sañees naa xotti biir bi ndaari mooy opéré ko rek mu juddoo ca génn génn li des ci doom ji su fekkee dara da ca génn nag waaye jafe na ci moom mu génn nga xam ne jafe na ci moom daal wasin ba ba tey sañes soo ko opéré génn doom ja walla sax day war loolu lépp kon boroom xam-xam yi wax nañ ci wax yu yaatu waaye bu ñu xoolee suñ jamono jii na nga xam ne moom daa mel ni eh, dañoo gaaw lool ci opéré la dañ gis ko mën a ku mën a am doom normal mën a fi ñu opéré ko loolu dañ ko tere loolu dañ ko tere dañ ko sañee su ko mooy su fekkee mën naa am doom normal rek na am doom normal waaye ki mën a am doom normal nga opéré ko mën naa am sax nga gaañ ko wala nga jum ca farmu faa suba ba rey bakkan bakkan bu rëy rëy la su muccee nag moom bàkkaaru ba ngay am nag mooy def ga nga ko def te te te mënoon a ñàkk waaye nag xormay kuy dund moo gën a yay may ku faatu moo tax nag bi nga xamee ne doom ji faatu na ndey ji dund ñee nañ ko génne ndax ndey ji mën ko ni dund fekkee ndey ji faatu na doom ji dund ñu ne subaa kon nañ xotti biir bi génn doom ji ngir moom mu dund ndax xormay kuy dund moo gën a màgg xormay ku faatu doon ci ñoom ñaar ñëpp am xorma te xeetli kuñ musal it ci alkande maanaam koo xam ne mënoon naa mucc te xeetli woo ko it maanaam xeetli ko warugar la ku mën a mucc xeetli ko ba mu mucc warugar la te ëmb doomu aadama la ki ñu ëmb doomu aadama la maa maasum mooy kuñ kuñ kuñ kuñ ñoŋal kuñ musal la kon war na xeetli ko su ko defee kon xaalaat yooyu nga xam ne dagan na ci nga nga nga nga nga nga def ci avortement médicalisé kon euh, faw day doon doom joo xam ne dafa juddoo ci dafa juddoo ci ci maanaam ci koo xam ne am na borom kër daal say say say boor doom doom doom ju dagan dañ ko ca sart mu doon dam ju dagan ci borom këram kon muy ñetti mbir yoo xam ne bu ci nekk dagan la ci kaw sart muy jëfandikoo lu lay tee gis baax ca sart yam àndal mu doon dagan ak jëfandikoo lu lay tax a gis baax ca sart yamuy àndal ak jëfandikoo dindi maanaam doom ji ëmb ba noppi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko mooy tam ci sàtte ya muy àndal door a dagan bu ci nekk rek kon am lu mu am lu mu am lu mu laaj loo xam ne warees na ko sàmmanteek moom bu baax a baax jigéen nag war a doon ko wax ne ko ko war a ko war a farlu ci diineem la ndax yii yëpp ay sew sew la yoo xam ne ku ci nekk war na ko jàng ba xam ko jigéen lu xam-xamam gàtt gàtt gàtt gàtt war na jàng charti gis baax saa bu gisee baax lu ko ca war loo mën a xew ca ga baax bi lu ca mën a xew ci yiñ doon leeral ci gannaaw yépp ma xam la ko ci sant ak lam ko ca tere wala xam deret jorngel mooy lan su ko gaaree lan moo ko ca war ak diir ba muy sax ci moom ak la ko ci sant xamit Eh, àq yi aju ci wàllu nifaas muy gësin yëpp lu ko ca war luñ ko ca sant luñ ko ca tere lu ko ca gaar nu ca war a taxawe war a xam itam jaxasoog borom këram la ko ca war ak sangu farataag yëpp lu xam-xamam gàtt gàtt gàtt yii moom war na ko xam loolu jànguti téere it mën naa ko jàng ca lam yu dégg dama ne ñu jàng ko ca dama ne ñu mu ne xaa ñu ne ko nangam nangam mu leer la ko ba mu leer ci boppam ba la ko ca mën a gaar mu xam mu xam loo ci sam sant maa ba ca loolu amul nag na na nangoo farlu ci laaj saa bu ko dara gaaree nag na laaj boroom xam-xam ne ko man kat nangam damaa gaar lu ci lu ci war mu toog ko ci aw yoon waaye jàng nga xamal ko ba foofu nag dundi sutura mu mu mu mu dafa gën soo xamee xamale sa bopp da ngay dox ci sutura kenn du la xamal dara waaye boo boo xamul nag faaw nga laaj te boo laajee ñu xamal la. ka nga laaj moom daa daa daa daa am lu mu xam ci yow te te te bu gënu bañoo ko xam a gën ndax bañoon ngaa xam la doon la doon tax mën a am nag mooy nga jàng ko yow ci sa bopp walla boroom këram bokk jàng xam ko di ko teg ci yoon fu mu fa nekk la ko ca war mu xamal ko ko mu mu mu mu mu def ko eh, mu am it ci biir sëy luy dox ci diggante boroom kër ak soxnaam ñu xam ne ñaar bu fekkee xas nañ daje jàkka ja ba fas leen maye leen li fekk amul soxna si amul ngànt borom këram saa ko soxlaa war naa mën a jot ci moom waaye borom kër amul mën a soxna amul sañ-sañ borom këram soxla mu di ko tere boppam safaan ba it borom kër amul sañ-sañ soxnaam soxla ko mu di ko tere boppam ñu bari nag dañuy wax rek benn bi mooy borom kër bu soxlaa soxnaam da ko a jox boppam bàyyi geneen nga jas waaye ñoo ci am ñoo ci am xàq ne borom kër amee xàq ci soxnaam noonu la soxna amee xàq ci borom këram saa bu ko soxlaa rek bu ne damaa sonn mu ne nangam nangam li fekk amul ngant lu wér muy wére di wala daal am na jafe-jafe subaa nag sañ naa gàntu ngir loola waaye su fekkente ne gàntu ko rek ci kaw rek. Euh, tegu ko ci benn benn benn benn teguwaay bu dëgër subaa da cay am bàkkaar yàlla da koy rëbb ni muy rëbboo jigéen ju tere boppam borom këram yooyu yëpp nay teggin dañ ci dañ ci ñëw ci émission yi ñëw dañ jàngale jëm bi jaxasoo ak jàppam am nay teggin lislaam lu mu doon jàngal la cay teggin bonu na muy jaxasoo soxnaam sax da lislaam da caa jàngal lu bare bare ba teggin yi ci war a dañ dañ ko di ci émission yi ci kanam incha allah waaye daal mat naa mat naa mat naa bàyyi xel tey sew-sew la yu baree baree ban yoo xam ne dafa dafa dafa ruq ndax lu ñuy jàngale ci fiq la te lu jafe-jafe-jafe la nag lu jafe la kon jigéen ju nekk rek war war war na ko jàng xam ko xamit na muy ànd ak borom këram ndax këram na mu dundee moom dafay feeñ ci ak njabootam ko sañoon ko ne nag sag njaboot ëllëg ñu doon njaboot gu baax lay tax sag njaboot nag yéwén ca ca sew sëyin lay doon jépp ju doom ju naan est-ce que yi rek may jàppal ndeyam dafa ndeyam a ko liggéey képp ku ay dàll la bari ci buntu néegam ndeyam a ko liggéey sëñ Habib Mbàkke daa wax ne nit lum baax baax baax lum tedd tedd tedd lum sell sell la ak lu mën a am lu mu a toll soo ci génnee liggéeyu ndeyam tuutee ca des moo tax kon liggéeyu ndey doon lu am solo liggéeyu ndey na mooy nam nam sëyale baayam rek nam sëli baan ca rafetal ga su rafetale aw sëyinam nangu di topp ndigal di dab bànneexam di wut ngërëmam ba am ngërëmam doom ju ci judd doom ju barkeel lay doon doom ju baax lay doon doom ju wërs ju am wërsëg lay doon lu mu wuti rek da koy da koy jàppale waaye koo gis mu sonn nga xam ne mënut am dara nga ne mu ngi kër kër nangoo liggéey nangoo sonn waaye mënut a am benn dërëm ca yaay ji lay dellu yaay moo ko liggéeyalut moo tax kon nañu xam lu lu lu mat a bàyyi xel la doom it am ngërëmal waajur da caa am solo mën naa doon ko xam ne wërsëg mën na ko am waaye nag merum waajur na xañ ko loola xañ ko indil ko jafe-jafe kon fexe bay gërëm la waajur ndax dañuy wax ne nday day nday day day xëy doom gont sa nday da xëyal liggéeyal la sam ngont nag moo koy mottali barke ba agsi moo kon faaw nga sabablu moo tax ñuy bañ jigéen di nàmpal doomam ci merum borom këram waxtu waxeen sa yàgg sa borom kër meroo ngeen xuloo bu ca nàmpal sa doom mukk boo ca nàmpalee ci meram moomu rek mën na ko jure fitna ëllëg jafe-jafe fam gën a lawi na mbooy boo ëmbee boo ëmbee na ngay moytu bu baax merloo sa borom kër waxtoo ko merloo rek mu feeñ ci doom ji ëllëg jaxital ci moom kon bi nga ëmbi ak bi nga nàmpal loo mën a moytu sa merum borom kër nga moytu ko ndax lépp day jaxital ci doom ji ëllëg kon su ko teg suñu baaraam foofu ëllëg ba ëllëg ñu dikk ci yeneen yeneen yeneen tomb su ko defee nag ñuy ñëw nag ci ñaanu tay gi ñaanu tay mooy allahumma inni as'aluka hubbaka wa xubba man yuxibuka wal amal allati yuballiguni xobbaka allahuma jaal xubbaka ahab ilaya min nafsi wa ahli wa min almaa il barid li muy tekk ma suma maa ngi lay ñaan sopp la ak sopp képp ko la sopp ak di jëf lépp lu may yóbbu ci sopp la yooyu suma maa ngi lay ñaan nga defan ma sama cofeel ci mooy sopp gi ma la sopp na na ma gënal sama jëmmi bopp gënal ma sama njaboot gënal ma ndox mu sedd loolu loolu ñaan googu ñu ko doxalee ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi wa te bëgg yàlla day tax yàlla bëgg la te cofeelu suñu borom njërmande ci ci ab jaamam su dee nag xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne iyaakum wal xasada fa innal xasada yaakulu alxasanaati kama taakulu naaru xatab ñu jël ko ci abi hurayra abu dawud ak ibnu maaji ko ci ne génn na ko nee na maa ngi leen di moytandikuloo ki ñaan ndax ki ñaan kat day lekk jëf yu baax yi comme ni sawar di lekke mat ki day lekk sa jëf yu baax comme ni sawar di lekk mat kon ki ñaan lu mat a moytu la yàlla ci sunu borom musal ñu digle ndaje incha allah suba ci waxtu yi seen mbokk si man Mbacke lañ si seen télévision Lamp Fall TV ñaan li gën ci noonu yàlla ko suñu doon defal dëppale ko ak li ñu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.